alxaja biraay simaani ne baayu sëriñ Maodo si ne soo ni melee yaa di ku baax bul tayyi bul yokki yoon waa ngoo gudd gudd xol mu ni fal muminuuna jamiian xaala mbokk lanu mawlaawu ma su la neexul yow ku ban bañal ku wax ni tuubaak ci waawan ñaari dëwla ci ni mu ko daan defee ci kàddu yi mu daan joxe waaye ba lay jël kàddu bi nag mu ànd ak mbokkam yu baax yi mu àndal ñii di ay rakkam ak doomam ak ay mbokki taalibe muy nuyu mbokk yépp waaye mi ngi ànd ak rakkam sëriñ Babacar si bu Cheikh Alhaaji Mouhamadul Habib mi nga xam ne mooy caatu maam Cheikh Seydil Hadji malik mi ngi ànd ak sëriñ Habib si bu xalif général de Tidiane sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour mu def waxtaan wi léegi ci kanamu sëriñ Bachir mi ngi ànd ak euh, sëriñ Sidi Ahmed Sy ba sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin moom itam doom mi ngi nii ci jataay bi mi ngi ànd ak sëriñ Lam Tooro Sy ànd ak sëriñ Cheikhou bu Cheikh Al Hadji Malick Sy Maodo mi ngi ànd ak mbokk yi mu àndal yëpp tabarakallah mi ngi ànd Euh, sëriñ Cheikh ma Tidiane Gaye mii nga xam ne mooy bopp yoon wi tabaarakallah ànd ak ay wëllëreem ak soppeem ànd ak xaji euh, Abdoul Aziz Samb ku ne xam na ko ñoom ñaar seen diggante ànd ak xaji Abdoul Aziz Fall moom itam tabaarakallahu digganteem ak sëriñ bi tabaarakallah ñi ngi ànd ak waa asfiya yi muy Babacar Niang ak Seydou Omar Fall ñu jóge ba asfiya yi ñoom itam ànd ak ñun ci yoon wi and ak Hadji Demba Fall ñi ngi ànd ak euh, Babacar Diagne ñi ngi ànd ak Sidi Ahmed Guèye ñi ngi ànd ak Hadji Ousmane Mbaye mi doon way léegi di doomu Hadji Mansour mbaay bi nga xam ne baayam mooy xalifa ma Moussa Ale Mbaye tabarakallahu ñoom ñooy géwal yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom la àndal ak mboolem ñi bokk ci délégation bi yépp rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan wa hidaayatan lilaalamin sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiicina wa mawlana muhammad al amin wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullah sëriñ bi dafa wax ne gannaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp balay kàddu bi dem ñi ngi jotal nuyoo Euh, président di leen jotal nuyoo xaji Sawru Kebe ak xaji Omar Kebe ak ñi ñu àndal nga xam ne fii ci dëkk bi la ñu dëkk nekk fi yor daayira bi nga xam ne mi ngi aju ci euh, euh, sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour di fi liggéeyal xadara bi ñu bokk nekk benn suñu fi ñëwee fekk leen fi suñu dem bàyyi leen fi ñoo ànd ci biir délégation boobu. yëkkati kaddu bu nee ñu ngi yëkkati kaddu bu gàtt incha allahu. te mooy kàddu yi kañ ko. nee kàddu yi nag mooy kàddu yi sant yàlla bakk yàlla kañ ko. jëlaat lépp nee ñu jël lépp nag delloowaat ko ci moom. ndax kat nee na mooy boroom mbindeef yi. bu ñu nee mbindeef nag. waxee mbindeef nag. nit rek nee nit rek taxul. lépp yàlla lépp lu yàlla bind. li ñu xam ak li ñu réere. li ak li nëbbu ak li feeñ. li ba ci nee ba ci sax li ñu xalaatul. te fekk na existé na. nee te loola fekk na muy lu am. loolu lépp mi ngi ci biir yàlla. nee loola lépp mi ngi ci biir yàlla. nee di julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa mi moom mi nga xam ne. olof ne nag nee na ku lakk mburu tudd dëkk. te mooy bi sallallahu nee te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa a jafe. nee xam na ne nag kàddu yi dana xaw a jafe. du wax ne tey. waaye nag ci waxtu wu ne ci saa ne. ndab bu feesee tuuru. olof dafay léeb ne ndab su feesee tuuru. waaye nag la jot tuuru lu mu bari bari. la ca biir ndab la nee la ca biir ndab la moo ëpp. lépp nag di mbégte. di mbégte. nee di aw yiw. nee di taraanga yoo xam ne. ne mënee su koo takk mënee su koo lim ne kon ñi ngi sant yàlla bu baax ne nag dañuy jiital ci kàddu yi ay nuyoo gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama toftal ci kàddu yu ay ziyaara yu ànd ak ndokkeel cant nee yu ànd ak cant ak i ngërëm. li may lim yëpp. nee li mu jot a lim yëpp. su amee fu mu tàmbalee. nee su amee fu mu tàmbalee. amul nee amul yemukaay. fa nee fa tabaarakallaahu. gi ñu nee ñi moom kaddu gi ñu ngi nii toog. di ñoom Serigne Babacar. nee di ñoom Serigne Babacar. ñoom Alxaaji Lam si. ñoom Serigne Mouhamadul Habib. ak Serigne Cheikh Omar si. ak mbooleem mbokk yu baax yi ñu àndal yépp. bokk yu tedd. nee ñëwit fekk fi bokk yu tedd. yu baax bokk yu dal yu yaatu yu yaatal indil leen nuyoo xalifa ba nee indil leen it nuyoo xalifa ba Cheikh Sidi Aboubacar Mouhamadul Mansour ak mboolem ay rakkam nee di Cheikh Al Hadji Malick bu Cheikh Al Hadji Abdoul Aziz ak Serigne Babacar Sy bu Al Hadji Abdoul Aziz Dabakh ak mbooleem seen rakk yëpp wax daal ci gàttal nee ba léegi rek génn ñu Tiwaawan dañu jóge Tiwaawan dugg Tiwaawan génnuñu tamit kër dugg kër. dañoo génne ci néeg bii rek duggaat ci néeg bii. waaye dëkk bi benn la. kër gi benn kër gi benn la. ëtt bi benn ëtt la. te defuñu ko ko. ko. yàllaa def yàllaa noonu ci boppam. binde ko ko binde noonu. programmé ko noonu jël ko. dénk ko ay nitam. wax toujours. day wax ne toujours. léeg-léeg ñu ne diw de nit nitam la. léeg-léeg ñu ne diw de nit nitam la. waaye diw de ak man mën nitam. waaye diw de ak a nitam. yàllaa leen ko gën a mën. yàllaa leen ko gën a mën. dàq leen dàq leen ko. man leen ca itam man leen ca itam. ndax mooy aji ji. yàllaay aji bind ji. te bind ko. te moom yàlla na kenn bind ko te moo bind ñëpp. fa tabaarakallaahu. soxna Baali. nee soxna Baali. wala mu ne wala mu ne bàjjen. Euh, tur buñ la bëgg woowee rek. nee tur wuñ la bëgg a woowee rek. ci tur wu tedd wu sell. ci tur woo xam ne tedd na sell na. te rafet te rafet. dañ koy xeeb. nee dañuy xeeb tur woowa. du xam sax ban lañ lay woowee. nee du ñu xam sax ban tur lañ lay war a woowee. waaye daal Mbàkke. waaye daal Mbàkke. ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ziyaara lay ndokkeel ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ngi lay masawu ñu ngi ñu nee ñu ngi bég fu ñu toll di la wettalikoo di la wettalikoo fu ñu toll di la tiitaroo fu ñu toll ci lépp ak ci nee ci lépp ak fépp nag ñaan nuyoo yooyu yooyu. ak ziyaar yooyu. ak ziyaar yooyu. ni ko sëriñ Mouhamadul Habib waxe sànq. nee ni ko sëriñ Mouhamadul Habib waxe sànq. ci kanamu cheikh Mouhamadul Bachir. ci kanamu cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Khadir. mu tàmbalee ca suñu kilifa. mu tàmbalee ca suñu kilifa. di suñu wayjur di suñu wayjur. di suñu soppe di suñu soppe. di cheikh Mouhamadul Muntaqa. di cheikh Mouhamadul Muntaqa. yàlla na ko fi yàlla dollee. yàlla na ko fi yàlla dollee yàggal. guddal fanam. nee guddal fanam. dolli ko wér. dolli ko wér. dolli ko kattanal ko kattanal ko. aar ko ko. musal ko muccal ko itam. wattu wattu ko. defal ko mbooleem sama njabootu maam. defal ko nag mboolem njabootu sama maam bu tedd bi di maam borom Touba. te ñun nee te ñun ñëpp ci lañu. ku baax ci ku baax rek ci nga bokk. ku bëgg a baax ci nga. ku bëgg a baax it ci nga bokk. ku nim sata see baax bokk nga ci. xamul nag nee xamul nag ku bëggul a baax. tabaarakallah waaye nitu yàlla. waaye ku baax rek nit yàlla la jaboote. maa koy wax keroog benn mbokk. ngi koy wax benn mbokk keroog. waxtaan ba ñuy waxtaan ba tudd màggal gi. mu am mu waxee moom. mu ne ko yow daal yaa muus. da ngeen defee ne bésu màggal gi yéen rek a ko moom. kuy mbindaafoon ci képp kuy mbindaafoon ci nga bokk. doomu aadama nag doomu aadama. te doomu aadama yi. te doomu aadama yi. ñii mbindaafon ñii yàlla bind leen yàlla bind leen. te duñu bokkuñ ci xeetu doomu aadama te ci xeetu doomu aadama. te sopp bis bi bi. bëgg bis bi bëgg ànd ak di ko teewe ànd ak di bis bi. ñoo ëpp li mu nit ñi. nitu yàlla. nitu yàlla. dimension dimension. moo toll noonu moo dañuy uuf ñëpp. dañuy uuf ñëpp. yaatal ñëpp yaatal njaboote it ñëpp. kon soxna si. kon nag soxna si. ci sa mbokk yu baax yi ma àndal. nee ci turu sa mbokk yu baax yii mu àndal. di say njaboot. di say njaboot. waaye xam naa ne. waaye nee xam na ne. sopp nañ la nee sopp nañ la. ku baax sopp it bëgg na la. waaye nee wóor na ko ne. Euh, li olof di wax naan. li olof di wax ne. kaar kaar. kaar kaar. ndawalu guddi. ndawalu guddi. bu ci sa loxo tegee. bu ci sa loxo tegee. ngay defe ne yow rek. da ngay defe ne yow rek yaa daj. waaye ñi ma àndal. waaye ñi mu àndal. ak ña ma bàyyi gannaaw ña mu bàyyi ca gannaaw. surtout ñi ma fiy fekk. rawatina ñi mu fiy fekk. du ma leen gën a sopp wax ne maa leen gën a sopp soxna Baali. cofeel gi day feeñ. ndax ne mbëggeel gi day feeñ ci xar kanam yi. maa ngi koy wax sànq xaaji Babacar Gueye. mi ngi koy wax léegi xaaji Babacar Gueye. mu ne ko. kaar kaar. kaar kaar. fii lépp dafa naturel. fii lépp dafa naturel. tàmbalee ko ci accueil bi. tàmbalee ko ci accueil bi. waxuma la sax accueil bi. waxuma la sax accueil bi. waaye boo yéenee nim sa waaye boo yéenee nim sa jóg rek jëm si fii. da ngay yàkkamtee ak si. yàkkamtee ak si. ndax yaatu gi. ndax yaatu gi nga fekk. yaatal yaatal gi. sell gi nga fiy fekk. mbaax gi nga fiy fekk. ci ba ci accueil bi nga fiy fekk. ci sargal beek ci sargal beeg. ci teraanga yeeg. ci teral beeg. ci lépp rek. ne kon nag Mbakke. yàlla mi ñàkkul dara yàlla mi nga xam ne ñàkkul dara. te moom lépp yàlla moom lépp. yàlla man lépp. ne daal dañ lay faf rek bàyyeeg yàlla. jaare googu nag ñu jaare ko. ci maam ju tedd maam ju tedd ji tëdd fii. di maam Cheikh Ahmadul Khadim. di maam Cheikh Ahmadul Khadim. yal na yàlla beesal yërmande ci moom. uuf njabootam uuf njabootam gu tedd gi. ci barke. ki nga xam ne tey. ki nga xam ne tey. moo tooge toogaayam moo tooge toogaayam. ba noppi di moom. ba noppi nag di moom. di cheikh Mouhamadul Mountakha di cheikh Mouhamadul Mountakha. soxna Baali. soxna Baali. yàlla boo jéem loo tële. ne yàlla boo jéem loo tële. yal na la yàlla wattul boppam. ne na la yàlla wattul boppam. yal la yàlla aaral boppam yal na lool. kat ñee na lool. sopp lool. sopp lool. bëgg lool. ku la yéene aw yiw. ak jàmm. ku la yéene jàmm. waaye yërëm na lool. waaye ku la yéene safaan yooyu. mënul ñàkk nee nag loolu mënul ñàkk. man dama dama gëm xëy na loolu amul. moom dafa gëm ne xëy na sax loolu amul. waaye lu yonent bi waaye loo xam ne yonent yàlla Muhammad dund na ko. sallallahu alayhi wa sallama ci ak i saxaabaam. ba agsi ci suñu maam ju baax ba agsi suñu maam ju baax ji. sunna lay nee su boobaa nag day nekk lu jaadu ci ñun. nekk wiraasa. nekk ndono nag ci ñun. faawu rek. am jaar jaar yuñ ci. am jaar fa tabaarakallaahu jotaay bii day jotaay bu am solo ndax Alaaji Mbaye Gueye mii nga dendal bi nga waxee léegi nii sama seex soxna Baali xam na ni loolu wér na ñun njabootam xam na ni loolu wér yow it ñi moom it ñi mu àndal ni eh, xam ni wér na ñi nga àndal yow ni xam ni loolu wér na ndax man mii rek alaaji mbay géey moom a njëkk a yóbbu bu jag saaw te bañ fa ñëwee soxna Baali mu ndaxaa mi falan ko fekk kon loola du tey booba la neexoon man manaan man de xam naa ni maire bii xaw ma nan naan laay def rek ba dugg dugg ci programme waaye nag ne li nga wax léegi rek pas-pas ak cofeel bu dee lu dëggu la yàllaa lay womat ba tàbbal la ca Moustapha Diop mii nga dendal moom ne taalibe gi dafa jiitu waaye nag frère de sang la dereta leen boole nu bokki maam bokk fa nu bàyyeekoo bokk lépp Moustapha di ku baax bëgg soxna baali jàpp soxna baali téye ko Kumba Mboor Sàmb mii nga xam ni bokk na ci jëwriñ yi féeteeg yow ni ci wàlli àddina saa buñ ko xoolee di la gis yow boo ko xoolee di di gis ci moom nun noo lay sant tonton Ablaye nduur Daas moom kër gi mën na fee dalal gan mën na ko fee yeewi mi ngi nii toog la rek mooy secrétaire particulier soxna Bali doomam la muy tinaa Tina jóge fi dem sëyi soxna si gis rakkam ji tudd astu jël ko tegaat ko ci wetam waaye Tina nag ren dafa màggal si jëlaat postam toog astu puus loolu nag li ko waral sa jikko ak sa taxawaay ma madame Ndour di nit ku baax kon nag noo ngi lay nuyu délégation bàyyi ko Njaasaan ñi ngi toog Zeyni Abidin Kunta ngi toog ak Serigne Mouhamed Kunta soxna Fatma Diop mii toog saal bi waxtu woo fi daan ñëw fii nga koy fekk mu daan toog ni muy toogee màggal gu jot ni fii lay dal ba ren yàlla dogal boroom këram ñu tap ñu takkal ko ndombo def ko ministre de l'industrie commerce muy Serigne Gueye jóob moo tax keroog. bii fi Serigne Gueye ñëwee dan ko ne ñun duñ la waxal doonu waxal yow ak soxna sa bu ngeen eh, xoolantee rek doy na ndax kër gi day sa kër at mu jot nii rek la jootaay bi ma sa demee dara mus sa kon dañ lay siyaare léegi nag El Hadj Cheikh bi xam naa ne temps bi xat na waaye nag ñetti kàddu yu bu ne juróomi minute rek ndax jootaay bi jootaay barke la nu may nu ko. Serigne Sidi Lamine Cissé mi bàyyi koo Njaasaan mu taxaw nii wax ñeenti baat ñu jox Serigne nda may gay EMC Moustapha joob bu waxee ba noppi rek ñu tëj ñaan xam naa ni nag seex loolu bu ma la ko déewoon da nga ma déewaat lu tax loolu du am moo tax ma taxaw wax ko ba ñëpp déggu ko nu xam ni kon lépp lu ca yéex rek seex a ko yéexal <laughs> bisimilah. di xalifatul am li taifatil qadriya abu ruux li zuriyati jaddina cheikh abina amatal kunti waaye di leen nuyu tamit ci turu sëriñ Babacar Sy Mansour mi nga xamante ni mooy xalifatul am li taifati tijaniya ayadahu llahu wa nasarahu waaye di leen nuyu tamit fa tabarakallahu ci xadara bi nga xam ni fi lañ nekk di xadaratul muridiya ki nekk ci bopp bi di sëriñ Muntaqa al Bachir fa tabarakallah xam ni ku yër minanul baaqil xadim fii sirati xayril xadim xam ni sëriñ Muntaqa way juróom di sëriñ Basiru wax na lu rëy ci ahlul kunti yi fa tabarakallahu waaye jaare ko ci cheikh bu Mouhamed Kunta mi nga xam ni mooy wajur mooy maami cheikh bu Sidi Mokhtar mi nga xamante ni mooy xalifatul am di taay fati qadiriya di nuyu Zeyni Abidin mi nga xam ni mooy bopp yoon bi Zeyni Abidin moom lañ fi àndal ak sëriñ Pap Kunta waaye ak Baye Mouhamed Kunta ñëw nag di ziar si di ndokkeel si ki nga xamante ni mooy soxna Bali di wax ni fa tabarakallahu lii mbégte rek lañ ci am ak contentement sëñ Mamour dafa am bis ñuy joxe orateur ci jamono yi Omar ibn Abdul Aziz ñoo ngi nuy xadaratu Tiwaawan bi yëpp di nuyu sunu sëriñ ndax jàngal nañ Sidi Ahmed si mii fa tabarakallahu ñu doon jàngee ci mahad ba mahad alxaaji Malick si mu daan ñu jàngal par aljuma tabarakallahu mi ngi jàng jàngal xadis ak tawxid yal na yàlla gën ko taxaw ñu doon joxe orateur ba agsi ci ndox lu mel ni man ne ko waxal ci kanamu kilifa yu mel ni yéen kanamu kilifa yu teddee ni yéen ne ko jëlal kàddu am ku ko wax ci biir mbooloo ma ni ko nan nga fi gën a doonee xale ba pare di jël kàddu mu ne bu fekkee tuuti naa nekk naa xale xanaa gënumaa tuuti hudhud mi nga xam ne moo nekkoon ci jamono yonentu yàlla Suleymaan te moom moo newoon Suleymaan xittu bi maa lam tuxit bihi wër naa loo wërul gis naa loo gisul ba pare ko jo wan ko Balqiis mi nga xamante ni moom la ngir googu mu àndaloon doon ko doon jaamu ci saba mu ne ko yow boo rëyee xanaa gënoo rëy ki nga xamante ni mooy yëntu yàlla Suleymaan mu ne ko ahankay mu ne ko waa waxal yàlla ubbi ko nag mu wax fasaaxa boo xamante ni ci la euh, euh, yëntu yàlla ci la Abdul Aziz wax ni taallam fa laysa al mar'u yuladu aaliman wa laysa axul ilmi kaman huwa jaahilun liñ fi ñëwloo waxuma dara sax mais mbaax gi ak tab geeg yaatu gi nga xamante ni dégg nañ ko ci soxna Baali te wala fi ne tong tong naat fu mu yegg dunq yaa ko fa yeggal tong tong naat fu mu wër fu ne rek dunq yaa ko fa yeggal ajwadu naasi man jaada an xilla wa saana wajha saaila anil madalla ki gën a tabe ci nit ñi du ki yëkkati alalam di ko joxe di ko joxe kem kéem kàttanam déedéet waaye mooy ki mën a ubbi kanamam ba gan ñi mu am mu mën leen a berndeel fa tabaarakallaahu bu ko defee soxna Baali dañoo ñëw ci niñ tol ñun waaye ñëwewuñ ci li nga toll li tax ñëwewuñ ci ni nga toll dafa am yonent yàlla Souleymane bis mu ne ñëpp ñi nekk ci mamlakaam ku ci ne nag ma indil addiya hudhud ñàkk lu mu def dem jëli ji benn jaraat njéeréel ci tefes gi ñëw indil ko yonent yàlla Souleymane ne ko ataytu ko bi hadiyatin ala qadri la ala qadrika soo weddee li ma lay wax man faatahul laxm lam tafathul maraq dama laa indil addiya joo xamante ni ci ni ma toll laa la ko indilee waaye du ci yow ti ni nga toll ku mënul am ci ndawal ni nag mën a am ci ñeex mi ñun moo tax ñuy doyloo ñeex mi fa tabaarakallaahu ndax kilifa yi fu ñu waxee seen wax dana yóbbaale suñu wax bu baax ndax diggante Ndiassane ak Tivaouane waaye diggante Touba ak Ndiassane kenn ku ne xam na ko ndax Cheikh bu Mouhamed Kunta jël na doomam bu ñëwee soxna Astu Kunta dénkaane ko fii jox ko sëñ Modou Moustapha ñu am fi ay njaboot fa tabaarakallaahu Zeynul Abidin mii mujjee dugg woy juróom ba maam alaaji maam bu jël na doomi sëñ Modou Moustapha di soxna ami ñi am ci sëñ Baye Sidi Kunta fa tabarakallahu mi ngi fii ci Daaru Kudus ak soxna ami Kunta fa tabarakallahu soxna ngeen ngeen xam loolu bu baax sa digganteek soxna Assu Kunta bintu maam alaaji maam dara dara umpuñu ci ndax bëri na waana fu muy waxee foo xam ne ñun lay jox kàddu ñu koy wax mu fonk la lool ci biir ak ci biti ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla gën a féddali loolu yàlla guddal say fan loo mën ren bu déwénee yàlla na nga mën lu ko bu baax diggante Tivaouane ak Ndiassane nag kenn du ko weerante ndax fi mu toll nii ah, bëri na ku dëkk Tivaouane koo xam ni say say say say say fenêtre mi ngi féete Ndiassane bëri na ku dëkk Ndiassane koo xam ni sa fenêtre mi ngi féete Tivaouane ci dëkkandoo bu rafet ci mbaax fa tabarakallahu kenn mënu leen a xàjjale kon buñ fi daje ci lii dañuy xam ni sëñ Touba la mu waxoon ni ayasa minnillahu inda jéewali iblisa isna day tuhu bi yaawali nafa li gayrillahu qablu fii ndari bi ahli badri usudi kadari nafa li gayrillahu fii ndakaaru kulla adan li jarrahu makaaru allamani rahmanu fi safina bi annani qadimu zil madina mooy wax ju dëgg ji wa fiikum barakallahu asalaamaaleykum wa rahmatullah du ñaari kër benn la dugg ci ëtt ci dugg dugg ci néeg la loolu mooy dëgg ndax géwél yu bari dañuy wax Ahmadou Fari Mata ak Cerno Mamar Mbakke waaye dafa am beneen bu dees muy Aala Demba Sene ba gay ak Njaay Demba ak Mbërgu Demba ak Njugo ñoo bokk ndey ak baay mbërgu Demba Sene ba gay mu jur Balla Mbërgu mu jur Daam Buri Saal mu jur Saliloo mu jënta Sali Kan jox ko Balla moom ca Maamor Anta Sali jox ko Maam Jaara Buso moom ca Maamor Jaara ak moo jur moo jël nag. Marema Jaxate bokk ndeyam Abdourahmane ak Balla Amsatu ak Fat Jaxate ak Asatu Jaxate soxna Marema Jaxate lan jox kan Cheikhul Khadim moom ci sëriñ sooy bu baayam bàyyi sëriñ Cheikh Sey sama sëriñ ak Cheikh Abdoulaye waaw fa laay ñëpp di foofu laa jëm damay damaa jëm ci mbërgu ba noppi waaye Njaay Sénégal laay li tax ma indi loolu mbërgu ba noppi ki ko dalal tax mokk ci deretu Sëriñ Tuubaa Njaay sana ba gay moo jël Kumba Caam am ca aramloo mu dem kër saa ndeene wele am fa daramaan wele mu jël Farma Diop am ca Bakar Farma Diop jox ko Mbodé Faye moom ca Fawad wele jox ko suñu man si moom ca Alaaji Malick bàyyi suñu Babacar bàyyi suñu Abdoulaye sa waajur waaye Ceerno Farimata bokk ndey ak bàyyi maanaam Mbakke Ceerno Farimata moo jur Mati Mbakke mu jur Maam Ousmane mu jur Alaaji Malick waaye Ceerno Farimata moo jur Xari Mbakke mu jur Ngañ Xari Mbakke Ngañ Xari Mbakke moo jur Sofiyatu Aram Bonk ak Mati Ñang chauffeur yi doon jox alaaji Malick moom Serigne Serigne Mansour bàyyi Serigne Babacar ak Serigne Abdou Aziz sa waajur ak Serigne Habib ak soxna na fi ma demoon Birkilaan ñoo bokk jënd ma da ña ju soxna sa mu sëñ Fall wu bu ma rema kunta moo tax mu ne tuutee tee ma sant mbak si kon loolu mooy dëgg Moustapha ñëw nag ci mbokkam wax nga ko am na ko wax léegi kunta waaye li soxna Bali mii xanaa xamu ne maamam moo meññ maam bu ndax moor xujja kumba ma moo jël fàddloo am ca soxna Isa ak Matar Anta soxna Isa lan jox lan joor moom ca Mor Isa yàlla wet jox ko kan maam rasal moom ca Serigne Massamba mu ne maa jox ko daam xuja jëbu moom gaydel xuja ko moom seen Modou Isa ak Ibrahima am solo ak Abdou Karim ñu bokk ndey baay waaye mare Matar Anta maam moo jur Basiiru ak Faati Xëri ñu bokk ndey ak baay ak mare Matar Anta ak Faati Xëri ak Basiiru waaye Marème moo dem Kàbbu Gay kër Balla Yaasin am ba soxna Màggat Gay jox ko si Abdou borom dër bi moom ci Serigne Serigne Abibu mooy xalifoom ak kan soxna moom ñu bokk jëndee jënd bay war a xaaj njoxo kan Serigne Soyibu maam ci soxna Baali toog Mor Xuja Kumba nag seen maam ak Faati Xuja Kumba Roqee Xuja Kumba bokk ndey baay Roqee Xuja Kumba moo dem ay numaani am fa Sadio Ba ak Penda Buya Ba. Sadio Ba moo dem Pire am fa Modou Fall Sadio Ba ak Fatou Fall Sadio Ba ñu bokk ndey ak baay Fatou Fall Sadio Ba la ñu jox kon borom daaru moom sëñ Cheikh Fatou Fall mu jóge fa nag dem Pire jox ko maam Budou Kunta mu ca maam Bu Kunta kon loolu yéen ko bokk. moo ko jokkoo ma ma sàmbant ceeb ma doon penn bu ma tànn ma mi seen ci kokki loolu nga bokk ak kan loolu nga bokk ak Moussa Fall mi fi ñëw di seen bokk waaye bàjjana ma ngeen toog Cheikh tak koo ko jur Ablaye Takko ak ak Cheikh Takko ak Amadou Yàlla Takko ak Fatou Bintou a bokk ndey ak baay Khourédia seen maam lañ jox seen Basiiru maam ci soxna Suburi jox ko Gaynde Fatma maam ci Njaga Suburi kee mooy bàjjenu Moustapha soxna ministre bi mooy bàjjenu kii ndax Sidi Basiiru baayam Sidi rek yoo ko jur ki kii sëriñ bi baayam ki daa doon fit xam nga la président Macky Sall waxoon Moustapha ni Moustapha da am fit ndax yaa ñëw sama biroon ni ma investir ma Louga maire su ma gañoon nga dàq ma mu na ko xanaa Moustapha li ngay wax ne xam nga ko xam nga kañ fekk Louga mu ne ko bindal décret signé ba doo du ma weddi doo weddi mu gaañ Aminata Mbengue Ndiaye ma na ko kii daa doon lool gànkeel bu du ma ko rajo maam bi ñu ko jamee xëy suba defe daa faar bi ñu ko yëkkatee dañ baa ni ma tëdd ñaawul kookoo jur soxna Fatma Cuub mu jur sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye kookoo jur Sidi Rakk mu jur Basiru baayam kankile bu numu xuraje mam mun ko daw ñaaw da mam la boole bakkan gille mari ndowe bagage susolu kaani ke laraf ten tog mak ca gàmm njaay asan maram pena mama cel maxa Moussa Fa mi fi ñëw jooro ko jur Mor Soxna Modou Faati Umma Samba Maram Xaya Amadou Yàlla mbokk dem Yàlla xuja kumba Yàlla xuja kumba jox ko saaxewar fan moom ci Amadou mu jur garmi lu mu jur wàllu jël Fatima Nguy am ta Seynabu Joom ñu delloo ko Jolof da ko bërëm penn njéema njotu maam ci Alburi Njaay Aminata dem Kokki Njaga am fa ndaak Marema xarit maam Pend Buya mu dami taak Samba xarit maam dem dekk la jox Amadou ndaak jaana sangom maam ci yaaba xarit maam wara xat ñëw ko ñoom dox tasmata bi ma soxna Aminata loo Aminata Faal aalalu kon Moustapha dafa wax ni li war na wax lépp sëriñ bi wax na ko waaye bala maa bàyyi wax ji damaa bëgg ñuy xam ni sëriñ bii ak soxna Baal li nu bokk ci maam te gis nga li may wax kenn bañu ko damaa taxaw ci Cheikh Sidil Muxtaar ànd ak sëriñ mbuub bu sesebem ma way ko mu may ma xaalis bu bari ñaanal ma ma dem sëriñ Muntaxa maamun may moo ko fekk ma way Moustapha wax li nu bokk wax ko li mu def ci réew mi mu may ma xaalis ñaanal ma waaye al amin ñëw Louga gàmmu ñu jox ma rajo bi ci biir gàmm gi sa kam na jibi jàll keroog bi ma waxee ba noppi alamin dana ma yaa gàmm gàmm gi ndax ñun ñi fi ne woon ñëpp boole nga nu ci buumi yeew ba xam le nu bokk lii ñuy wax wax lu baax la kenn ñu ko fenn doo ab sëriñ bu ko bañ ndax tëggu ma wayu ba taasu ma tëggu may tama ay mbokk laay wax li nit ñi bokk sëriñ Maam Mor laa àndal bërki démb jógee Bamba day talaata laa wàcc Sénégal États-Unis laa demoon te ki ma àndaloon ñàkkul fayda ñu ko ñeme bëriwul muy sëriñ Maam Mor mooy Cheikh Madou Moutara kon nag sëriñ bi la ma waxoon sëñ Mamour laa wax da xam sa bopp nit day xam boppam nit du gëm boppam boo gëmee sa bopp asamaan daal def ni boo ko joxe ñëpp gaynde daa war a boole yëpp ñu leen suba ki gën a saay saay laay rek bukki ni xaaral ma yeesal njàpp génn daw xëy suba dajeeg lëg lëg ni ko bukki ni nga def noo ko ma ne mu ne ko nu ma def mu ne ko ñuy waxtaan nga daw mu ne ko lu nu fa wax mu ne woon dañ ko gën a saay saay laay rey mu ne ko ndax ba ma demee rey nañ fa kenn mun ne ko déere mu ne ko damaa xam sama bopp xam ba xam jeex xam te bopp sa gën kon Moustapha mi nga xam ni daa xam boppam di nit ku yiw di nit ku baax nga wax ko li nga ko wax te bana dimbale ay ay gor te Moustapha mayewul sarxewul day dimbale dama ni ba nga nee Moustapha ñëpp wax li nga wax ci moom kenn jëpp ko lu ko mu dëkk 1960 ba nag nii lam fa def ci maire benn maire defu ko fa. lam fa yóbbu ci nit ci màkk kenn defu ko fa lam fa faji dof kenn defu ko lam fa daji nit kenn daju ko kon kii mooy jàmbaar mooy nit ku baax mooy jëfi yàlla ma sira jëf maam daa am aw ko jëf yàlla ñu ne ko lu mun na mu ni jaam bu ko wax bañ saa boo xëj naqar ngay xëy te nag dof ba daa génn ci mbedd mi boobu lay tëjee dégg ñu ne ndimbal na ja fekk loxol borom mu ni loolu maa ci xam dara sama caay ji bi muy lakk bii lu ci bari maa ko ku ne jël li nga bëgg ne ñu reer ba pare reer bu neex waxtaan soxna si ne ko déy ko ni ko maa ngi laaj kii de ni ko maa ngi laaj bil bi de addition bi ñu indi ko mu liir ko ne mu wokk ko de ne ko Pape Sidi est nga li a fay mun xanaa yàlla newu fi ndekete Mouhamadul Moustapha mi ngi woon ci ginnaawam jóg na moom jóg na moom ak simplicité am su la rombee doo ko xàmmee nee dem fay lépp ñëw toog nee soxna si woowaat ko nee waa ji ñëw mu mu ne ko madam am na koo fay de nee na bu kenn tudd mu ne ko loolu kenn du ko def kon ne du ngeen tëj tey il faut xam ki ko fay. nee mu xaw a jafe far ma xam ko waaye bi ci gën a doy waar soxna si ni ko kon li nga naroon fayee danu koy séddoo mu ne ko gis na nag man am na lu ma xam Baye Abdou daan na wax ni li nekk fii bu génnul li ne fii du wàcc dëgg la de nee ñu paacoo ko ñu génn di tàggoo Moustapha génn tàggoo ba pare dugg ci otoom yebal benn mbokk mu ñëw sëgg wàcc witiram moo doon dawal mbokk am na lu mu ko jox de téye naa ko téye loxo bi mënut koo téye waaye tax naa féet mun tàbbi coto bi rek mu ne ko li tàbbi lu mu mu ne ko turi mooy kenn du ko gis <laughs> nee ñu ak kër ga mun waaw dama bëgg a yeesal njàpp mu ne ko maa déedéet mu ne waaw loolu bari na de dama soof bopp dëgg la dugg ci wanag wi yàgg fa lool mu ne Pape ba jàmm la mu ne ko ñooy ñooy waaye daal ne bi mu génnee ne li muy wax nekkul ay sos de teraan kenn du ko bu génnee yeesal na njàpp de julli ñaari rakk ñaanal ko ndax fekk na mu am lu ma doon dox mu mel na lu xaw a jafe waaye yomb gaa ëppoon xam nga lu tax ëppoon naka tam Moustapha ngi ci yoon wi macha allah ne loolu faaw mu nettali ko ne bëgg ko de waaye dinaa ko wax mu ngi noonu kon lu baax a mel noonu. liggéey bi mi liggéeyal maam yàlla sunu borom bàyyi ko fi ba mën koo yeggale. ci jàmm ak salaam ne sëriñ bi moom mun koo fay ne di sunu soppe neen sopp ko bu baax ne kon daal boo waxee yóbbaale na ñëpp di nuyu nee na magam sëriñ Mbaye Guèye di ku baax di ku yiw saa ñëw ci màggal gi fi koy fekk moog la ministre Abdoulaye Ndour di sunu xarit ne suñu wëlëre la bokk dëkkandoo ca Nord Foire kàddu yu baax rek moo jib ci moom ne fu mu tourné ñu wax ko ci moom ne di nuyu également bàjjenam Fatma Diop ne mënut a wax ci moom ndax lépp ma ne ñoo bokk lépp di nit baax saa yu ñëwee fekk soxna Baali di mbokkam di léppam di sant ñëpp. di sant ñëpp nee di sant Fatou Géwal Diouf nag moom di léppam nee day géwalam bu baax bu ko bëgg di nuyu ñëpp di nuyu maître lii ko ba fàttewuñu kenn di sant ñëpp di feddale sunu kóllëre ak sunu sëriñ bi ak di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ndax njëriñu askan wi la te nit ku baax la sant ñëpp di sant maam bu kunta di sant ñëpp waa Ndiassane yi nee na ndax mbokk mbokk waaye maamu li nga dox soxna Ba laa sox lii ko mii moom man bëgg naa ko xam El Hadj Massamba tudd maay maay géwul sëriñ bi di euh, soxna si di taalibeem El Hadj Massamba di communicateur di expliqué donc. waltus bina wa xawina wa kun lana wa hab lana xusnal xitaami rabbana wa salliyan ala nabi wa sallimi waqdi bihi xaajati kulli muslimin barke Cheikhul Xadim bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur di la fay ci saw sant wax ji nag dama xaw a tungoom ndax li tax mu tungoom ma man daa am lu ma war a wax bi ma ko nasee ngir wax ko ndigal jib Cheikh Ibrahima Mbacke ñëw jullee ndoog ñun timis fii woo ma di wax gi ba yàgg mu woo ma mu ni ma sëriñ bi nee na mbay géey mën naa toog ci soxna baali wettilil ko ko ndax waa Tiwaawan yaa ngi ñëw su ñëwee mu yor sama kàddu yiwil ma leen te waa Tiwaawan yii nag bu bokk ñoom dëkk bokk dëkk fa Tiwaawan ñuy samay sëriñ di samay xarit toll ci man fa Tiwaawan ni ëllu Mbàkke toll toll ci man ci fii maa ngi koy tàmbale ci sëriñ Sidi Ahmed si mii ndax yaakaar naa ni nootu naa lool ci njaboot xalifay seexul xadim yi su fay dem mi ngi nii dafa may jël ñu ànd am na bis boo xamante ni bi ma ci gën a neex mooy dañoo ànd dugg ca biir ci sëriñ Sidil Mokhtar mënu ko géey mënu ko xam naa ko ràññi naa ko lool loolu lu lu ñu ci man amul ci àdduna waaye la ca toftaluwaat ndénkaan la ko sëriñ Sidi Mokhtar wax ba da koo laaj sëriñ Abdoul Aziz Sy Al ni ko boo demee nee ko maa ngi koy ñaanal te lu ngeen man na ngeen ko gën a góorgóorlu ci wettili ko ndax nag sab sagub lislaam la sëriñ baa nii ñoo bokk toog fi bokk toog ñun ñëpp sëriñ Habiba ngi di doomi xalifa bi am naa ci wéy juram loo xam ni bariwul ku ko am ca Côte d'Ivoire barke Seexul Xadim jóge na kër mag mag moom ca Treichville ñëw ba sama atelier ca ajame ca Abidjan wallaay loolu nag doole maam laaj Maalik ba naga ni kër googayee jëfi yàlla la lu fa jóge bàyyi maxet dañu woon joxewul lu dul dundal ci njaboot gi ak teeru ci njabootu maam Alaaji Maalik foofee la jóge ñëw ba sama place li ma am ci moom jàpp naa ne ba ma koy am aw ko ci kenn ko sant si ba suñu joon yàlla yi tey di leen ziyaare di leen gërëm ndax su ma ko toppee day gudd waaye amu ci koo xamante ni jàppe woo ma ni sa taalube bopp kon maa ngi leen di ñaanal ci seen barke maam fu ngeen bëgg a yegg yàlla leen fa yàlla yeggalee di gën a li sama kóllëre nag ak yéen bu baax a baax ci teewaay bii li ki des nag moo di soxna Baali lañuy sant di ko gërëm Mbàkke ñi ngi ñaan yàlla ci barke Seexul Xadiim mbalaan ma yàlla moo doon Cheikh Ahmad ba mu dem ca géej ga ba dellu si yàlla na la ke sa maam Seexul Xadim yiir ba defal la sa bëgg ni ko sunu sëriñ Sidi Ahmed waxee léegi yàlla boo jëm dara balay sa loo tële li nga sémb yàlla na ko àggale ki sa sago te yàlla bàyyi lu fi Cheikh Mouhamadul Mountakha mu dund lu ko soob te mu ànd ak wér loolu laa amoon ci sama kàddu bopp kon li ki des nag mooy ma bàyyi kàddu gi ak alaaji Mbay Géey mi nga xamante ni sëriñ bi moo ko jox ndigal ci bokki bokk boppam yi kon nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki julit yi nee na kàddu gu gàtt nag lay doon ndax moom day nee na xamul fu muy tàmbalee ak foo xamante ni fala la war a yem ndax mbégte. nee na ci ñaar ñii nga xam ni ñoom la war a wax ci ñoom. nee na wax ci yomb na ko nag waaye jafe na ko. maa ngi ñëw ànd nee na mi ngi ñëw ànd ak xaritam yi nga xam ni ñoom la sëriñ Sidi Ahmed si wax léegi. yàlla def ànd nañu juróom benn nga xam ni yàlla dogal nañu ànd diirub juróom benn fukki at. El Hadj Babacar kër juuf mi ngi nee toog. El Hadj Badouba. El Hadj Badouba. El Hadj Babacar Kan. El Hadj Kan. ak El Hadj Modou Gueye mii yor micro bi di wax ak yéen. damaa xamul ci waa ni ndax man sëñ waa Tiwaawan la ma damaa xamul ci waa Tiwaawan ni nga bokk. non man damay bokk ci waa Tiwaawan mënu ma faa génn moom wax dëgg na moom moom comme danga maa affecté woon Tiwaawan ma nekkal la fa saa yooyu ñëw jaar ci man kon bàyyi ma Tiwaawan ba pare du tee ma doon li ma doon ci yow. <laughs> ànd sa soxna jóge Abidjan. nee na ànd ak sama soxna mu jóge Abidjan ñëw di màggal si. man nag sama soxna laa àndal. nee na moom nag soxnaam la àndal. ak sama gorom ak sama muy sama yaayi soxna. ak sama rakki soxna Dorine. nee na soxna sa Mbay di yaayam. waaye. waaye nag. nee na Serigne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke defati na lam daan def. amin maa ngi nuyu mi ngi nuyu xaritam. le ministre Abdoulaye Ndour. di nit ku baax. nit ku baax. ku yaru ku yaru. taalibe ku amuk taalibe. déggewu ma ko ci moom nee loolu déggewu ko ci moom de. déggewu ma ko nee na it déggewu ko ci xaritam. ci sëriñam sëñ Mountakha laa nee na ci sëriñam Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yan na fi yàgg te wér ci la ko déggee. moo tax ma mën nee na looloo waral ma mën a waat ni. taalibe Abdoulaye taalibe la. nee na maa ngi nuyu tamit le ministre Moustapha Diop. neena lu nit ñàkk ci nit dara. nee xanaa lu nit ñàkk xam-xam-xam ci nit dara. te miin ko tuuti. sañ yaru la. sañ ni Moustapha Diop daal moom ku yaru la. yar rek laa xam ci. yar dey laa xam ci moom. waaye nag li ñu nag li nga xam ni moom lañu fi yëkkati jëy kàddu fii. mu bokk ko nee na mu bokk ko ak soxna si. wax na dëgg. te nag loolu mooy waxi dëgg de. at mu jot ñu tase fi ñu tase fi. buñ fi jógee. buñ feneen fu ñu tase. feneen fu cërub mag bi. cërub mag bi. cërub bi. ak cër bi yëpp. dina ma ko jox. kon Serigne Moustapha yal na yàlla gën a dëgëral sa cër. soxna Baali. soxna Baali Muntaxa danga maa tere ma wax tere ma wax ci yow. tere ma jox tere yi tamit ma jox la ma de xam naa ci dara. sequma ak yow ngërëm. nee na sequma ak wax. loolu day la ma wax. sequma ak yow joxe. xam naa ci dara. bu ma bëggee na kon su ma bëggee wax ci moom lu may wax. waaye sañ naa. waaye nag soxna si xanaa sañ naa. wax la ni wax la ni la. li nga daj ci kër sëñ Mountakha gii. li nga daj ci kër Cheikh Mouhamadul Mountakha gii. yàlla na la sëriñ Touba yàlla na la Cheikh Ahmad Bamba sa maam fay. te xam nga ne am na lu ma nee na te xam nga it am na lu ma ci xam. comme du ma la gërëm. nee na comme du ma la gërëm. te du ma la jox. te it du ma la jox loolu damaa ci xam dara. ma boole la ak Serigne nee na ma boole la ak Cheikh Mouhamadul Mountakha. moom nee na ci ngërëmam yal na la ci yàlla yal na ko ci yàlla déglu ci yow. kii nag di Sidi Ahmed. nee na Sidi baax mi toog. daanaka la même chose. nee na daanaka nag benn lanu moog soxna Baali ci moom. ndax moom nee na sama cheikh. nee na moom nee na xaaju mbay seexam la. est-ce que Ousseynou mën naa tagg euh, euh, Assane. ndax mën naa tagg Assane. su may wax ci moom. ndax su may wax ci moom. ci sama bopp ci sama bopp képp laay wax. waaye xanaa sañ naa. waaye nag Sidia. Ah, xanaa mbay nee na xanaa nag sañ na. kuy sénégalais. kuy sénégalais. wala ngay africain mbaa ngay africain. nee na Sidi Ahmed nit ku baax nga. sama digganteeg yow. yow nag. dama lay wax. dama lay wax. la ma soxna Baali waxoon. la ma soxna Baali waxoon. ni ma Mbaye Gueye. ni ma Mbaye Gueye. sama digganteeg yow. sama digganteeg yow. Serigne Touba rek laa koy seedeel. sama Serigne Touba rek laa koy seedeel. waaye yow Sidi Ahmed. waaye yow Sidi Ahmed si. sama digganteeg yow. sama digganteeg yow. Serigne rek laa koy. Cheikh Mouhamadul Mountakha rek laa koy seedeel. duma la gërëm. duma la gërëm. dama lay ñaanal dama lay ñaanal. nga di ma ñaanal nga di ma ñaanal. may sàkku sa ñaan may sàkku nag fu ma toll. rëy na lool. rëy na lool nag. cër bi. Serigne Mountakha. Cheikh Mouhamadul Mountakha. Moustahine woo ma. Cheikh Moustahine woo ko. ni ma sëñ baa ngi nii. ni ko sëñ baa ngi nii. toogal bala ngay ñëw. ni ko toogal bala ngay ñëw. waa yaa ngi ñëw. waa Tiwaawoon yaa ngi ñëw. nga yeewi leen. nga yeewi leen. ci la. ci ndigalam. ci ndigalul sëriñ bi. loolu. loolu nag. lu rëy la ci moom. nee na loolu daal lu rëy la ci moom. waaye lu rëy loolu. lu lu rëy lu toll noonu nag. ki tax ma am ko tax ma am ko. nan la mel ci nan la mel ci man. muy soxna Baali loolu mooy soxna Baali Muntaxa mii toog. Sénégal gépp Sénégal gépp kooni Mbaye Guèye kooni Mbaye Guèye mum sëñ Muntaxa mu ni mum sëñ Muntaxa garaat boobu garaat boobu lu ko gën a rëy ki la may garaat boobu ki la may garaat boobu kooku kan la kooku kan la ak mu mel ci yow lan nga mën a wax nee na loo mën a wax ci moom yàlla na yàlla fay Cheikh Soxna Bali Alaaji Mbaye Guèye nee na yàlla na la yàlla fay di ñaan di ñaan yàlla suñu jataay bii. suñu jataay bii. nii mu rafet. nii mu rafetee. képp ku fi nekk. ak képp ku fi ne. ku fi nekk ku ne. njaboot ga nga fa bàyyi. njaboot ga nga fa bàyyi. te ñëwuñu. te ñëwuñu. ak ñi fi nekk ak ñi fi nekk. yàlla na yàlla taxawu leen. nee na yàlla na yàlla taxawu leen. yàlla yàlla wéral ñi fi nekk. nee na yàlla na yàlla wéral ñi fi nekk ñëpp. aajo yi ñi faj aajo it ñi fi nekk ñëpp. ban tasewaat fi déwén. ba ñu tasewaat fi déwén. ñun de. ñun de. sant leen nañu Serigne Touba yàlla. sant sëtam bi di Sëñ Muntaxa sant Cheikh Mouhamadul Muntaxa sëtam bi di Soxna Baali sant it Soxna Baali Muntaxa sant képp koo xam ni teew nga képp sant na it képp koo xam ni teew nga tey jii ci bisub màggal gii may ñaan sëñ bi nee mi ngi ñaan yaak Soxna Baali yaak Soxna Baali yaa fi alaaji Malick yaa fi maam alaaji Malick nee na Soxna Baali moo fi nekk Cheikhul Khadim dama bëgg ma saisir leen Mamour Lo te nga témoigner loolu yow nag sëñ Mamour Lo nee na sëñ Mamour yow day doom nga jarbaat nga nee na bu ma am fierté ci yow nee na su ma ko waxee nag nee na nga war koo gëm nee na xam nga ni yow Mamour man sa ndijaay ji du wax lu ma gëmul sa taxawaay ci kër gi. ci kër gi. soo xamoon ni mu mel ci man. ak fierté bi may jox. ak fierté bi nga xam ni moom la may jox. nee na su du woon lii rek. ñoom doon gàcc. waaye. waaye nag maamul. mbetteel bi ma ci yow. mais mbetteel bi ma am ci yow. mbetteel mbégte la. mbetteelu mbégte la. xaw ma woon maamul. sa ndijaay nee na xamul woon ni. yaakaaruma woon ni nee na yaakaarul woon ni. nga mën a assuré. di nga am dayoo bu toll nii bii nga am ci soxna si ba mën ko assuré. ba dépassé li mu yaakaaroon. yal na yàlla jàppale la. sëñ Mamour yal na yàlla jàppale la. nga yàgg fi lool. nee na nga yàgg fi lool. ba bu ñu lay ba boo fi jóge ba boo fiy jógee. say sët say sët. ñoo la fi remplacé ñoo la fi toog di la fi remplacé. te nga gën góor góorgóorlu. nee gën a góorgóorlu nag. loo doy. loo loo baax. doyul man de loolu laa loo baax doyul wala. loo baax doyul. loo def ci safaan rek nee na xanaa safaan kay wax waaye baax moom loo ci def doyul. fii nga nekk fii nga ne. fu naqaree nekk fu naqaree nekk la. looloo tax ma tiitaloon nee na loolu moo tax njaal benn ma tiitaloon la. ñëpp la fi fekk waaye ñëpp na xam ni ñëpp la fi fekk. numéro bépp fi nekk numéro bépp fi ñëw. nga nekk ak koo nga xam ni nga nekk ak koo xam ni. du gàntu kenn du gàntu kenn. du kenn du dàq kenn. ñëpp lay fat ñëpp lay fat. même day xam ni nga mel. day xam ni nga mel. teewul mu fat la teewul mu fat la. nga bëgg cee nekk moom nga bëgg cee nekk moom. bu baaxee ñu ni yow bu baaxee ñu yow a. su bonee ñu ni yow a. kon bu ñëpp nee baax daal Mamour bu ñëpp ne baax na. santal yàlla alhamdulilahi rabbil alamin santal te gën góorgóorlu. asalaamaaleykum. Eh, lii lii sëñ Mbaye wax ci soxna Bali rek laay wax sëñ bi. min daaratil minna ni yaasal minna. ataani yal marka bu fii daari minnan. inda tasin taddu fu la nii daari minnan. ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom. julliti sangi sangi Seyduna Muhammad di sant Serigne Touba Xaadimal Moustapha di ñaana Seex Moodu Muntaxa yàlla na fi yàgg te mu naalal diine naalal ko lislaam mu àggale koog sagom te nu ànd moom di siyaare bu baax kilifa gu gaax gi ngeen bàyyi ko ca xadara ba muy Serigne Babacar Sy Mansour moom it yàlla guddal fanam wéral cëram yàlla na fekkee matuk matuk jumaa ji te jiitu ko téeméeri atu tàmbali tey siyaare sunu mbokk njaasaan yi ñaanal al xalifatul am seex bu mu seex Sidi Mokhtar Kunta moom Cheikh bu Mouhamed Kunta Borom mu Ndiassane ñoo ngi nuyu mboolem ñi fi teew di ko ñaanal bépp kilifa diine bu ne ci réew mi waaye ñaan gi ñu ngi koy ñaanal bépp jullit bu soso dal di dox te lislaam rekk tax kàddu yii nag yu bàyyi ko soxna Baali Muntaxa la muy kàddu yi cant ak ay kàddu yu ngërëm ndax mboolem ñi fi teew ñëpp benn rekk lanu day mel ni da naan ñeenti délégation yu fi daje. waaye ñu ñi dëkk ci kër gi dañ naan ñeenti délégation yi fi ànd ñëw na loola nag lay sabab bi mooy ñoom ni waxtu wii at mu jot nii lañu fiy daje ministre Moustapha Diop mii at bu jot bi nga xamante ni salle bi réception ba fee la nekkee waxtu yi moo daan toog nii sëriñ Serigne Sidi Ahmed toog ne tonton Mbaye toog nii ñu jàkkaarloo kon li li ma sama nijaay Idrissa Gay waxoon rek ñëwoon ak lëwoon ak ñëwoon ba faw yàlla nañ ko fekkee waat téeméeri atu tàmbali tey soxna Baali wax ni xolam sedd na guy ak cantam nag ci euh, euh, sëriñ bi nee na gën naa dolliku te na ñëpp xam ni moom mi ngi sant sëñ Touba ndax jootaay bii sëriñ Touba ko digle fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxiida saawlin tama ilal jëylaani aw intama li ahmada tijaani aw li suwaaxuma min al axtaabi iskulluhum ñenn ñi nag ndax eh, xat xan lan wax ñii ne dal la waaye ak lu mën a xew rek moom alal sawaab kon nag mi ngi sant yàlla bu baax di leen nuyu Serigne siidi Ahmed dañuy njëkkee ci moom nuyoo bi waaye cant gi it ci moom lay tëje ndax daf ma ni na nga tàmbalee ci moom waaye na nga tëjee ci moom muy mubaarakun ibtidaa yi may Maymunu Intixa kon nag si Malick noo ngi lay nuyu nuyu waa xadara bi nga àndal yëpp ndax ku xool délégation bi xam ne la ko dalee ci Serigne kër Sy ba ci Serigne Cheikh di Ahmed ba ci sëriñ Habib Sy mii caat ñëpp a ngi buntu kër goo fëgg ci Tiwaawan rek kilifa bàyyi ko na ñëw àndak moom lii te at mu jotit nii lañ koy defee. di ci ànd ak ak kontante kon si Malick eh, jërëjëf alaaj Mbaye Gueye EMG soxna baali nee na mi ngi lay nuyu nuyu soxna Elisa mii nga àndal mu di sa soxna waaye nag doon xaritam doon kenn ci moom yow ni sa digganteek soxna baali ni famille la yow kër gi fii fii soxna si toog bu ko sëñ mun taxawoon mu jóg nekk ci ndigal man nga fee toog maamun lu taxaw fii mu taxaw ni Cheikh jóob taxaw ngay wax ñuy def loolu nag li ko waral diggante bi dafa yàgg te lépp tegu ci pas-pas tegu ci cofeel tegu ci taalube nee naa nag ba ngay ba ngay am lanteeg soxna si booba sëñ taxaa dañ naan ko nuyul ñu sëñ Moussa Bassirou sa mag ji ñu dem ba ñaan ko ba ñu naan la alaaj may boo demee nga nuyu ñu sëñ Muntaxa mi fii ni sëriñ Basiiru waaye léegi boo dee départ Dakar dañ naan la sawaa waa jaga daan dem nuyul ñu ko ndax tey mooy euh, euh, ndi sëriñ bu mag bi loolu nag da ko fee xaar ba am ko fi moo tax waxtu wu jot ak cir bi nii lay demee démb rek doy na sëkk taw feex euh, lese lese passé yii beneen bu kawe bi hors de mission bi sëfooru sëriñ Muntaxa moo jóge ba résidence ñëw di dox ngir yow say ordre ngir ñu mën koo lijjanti loolu nag la ko sabab mooy ak taalibe gu yàgg ba noppi dëggal ba noppi dëggu ñii nga àndal ñëpp at bu jot mooy ñi nga fi daan àndal kon nag Guèye ne soxna baali sant na la gërëm na la loolu nga wax léegi ci seen diggante loolu rek a valable nee naa jaratul yi wax jaratul dara nee na boo taxawee rek ne mu gis ni yaa ngi ci kër gi yow it nga gis ko français nee na y a des images qui parlent loolu tënk na lépp. kon Guèye ñi ngi lay sant noo ngi lay gërëm rafetlu sa taxawaay liggéeyal nga mun Muntaxa liggéey bu ne Pastef bu ne wane nga ko taxawaay bu ne am nga ko ci kon nag ni ki tax ngay def mooy béytu alaaji Moodu boobu yàlla na dajak yow muy lan la sii na daamoo fii xidmat yi waxab lahum maaraamu sant na la gërëm na la Moustapha Diop jërëjëf jërëjëf jërëjëfati ndax yow doom nga ci kër gi rakk nga fi taalibe nga fi jarbaat nga fi lépp nga fi garaatu àdduna bu ne yàlla takkal na la ko fii ci réew mi waaye saa boo ñëwee ci kër gi benn Moustapha rek benn Moustapha bi rek dara mus sa soppiku dara mus sa benn melo bii rek moom la mu xañ ci yow saa boo gisee soxna Bali reetaan ngay njëkk a def bég kontaan ni kaf moom te loolu nag mbokku démb la waaye nag cër bii nga xam ni nag. mooy cërub Serigne Touba bii nga jox ko ba mu mat sëkk kon noo lay sant di la gërëm yaag délégation bi nga àndal yëpp ndax tamit at bu jot kenn ku ne ci ñoom bari na murit te ba noppi seeni sëriñ dëkk Touba ñoom ñu am kër Touba waaye ku ne xam na ni bisu màggal Touba moom tàkkusaan fu mu jotee mu Moustapha ñi mu àndal ñëpp da leen di dajale lu waay jàpp bàyyi ko ñu ñëw fii ne ci kanamu bàjjanam bi di xaritam di soppeem muy euh, soxna Bali Muntaxa kon nag euh, Diop ni jërëjëf ni soxna si kontaan na di siyaare bu baax sunu mbokk yi nga xam ni noo bàyyi koo Njaasaan diggante Njaasaan ak Touba inna la siin ak amanu la keroog bi nga xamante ni tubaab bi jël na sëriñ bi yóbbu ci géej gi sëriñ sëriñ ne ma fëri Njaay ca përi Njaay dafa dem Njaasaan daat ne Cheikh bu Mouhamed Kunta dégg naa ne yow euh, euh, ni wàlliw nga sëriñ bi ma yaakaar nag. tubaab bi da koo jël yóbbu te ñoom ku ñu ma a jël yóbbu ne dootoo ñibbisi Seex bu Muhammad ne ko sëriñ bi nga yaakaar jamono bi ko tubaab bi jàpp biddéew la waaye bu àggee fa mu jëm doon weer waaye bis bu ñibbisee doon jant tiim ñëpp kon diggante bi alaaxa yi dafa yàgg sëñ tubaa it man li tax ma gëm Seex Sidi Moxtaar Kuntiyu sëriñ Tuubaa ko bind moo ne Seexul Kuntiyu sil anwaar sëñ Tuubaa moo tamponé ni moom moom Cheikh Sidi Kunta donn na Cheikh Abdou Khadir Jeylaani moom la maam Cheikh moom la sëñ Mor Anta Sali tuddee maam Cheikh Anta mii nee naa it barki démb Serigne Touba bi mu man tur bu ma gis euh, di Serigne bi bind ko rek man dama naan kii moom première position la ne dani raddi yi an nii sibtaxoo Jeylaani ma ne kon Cheikh Abdou Cheikh Abdou Khadir laa denc ca kaw mu ne raddi an nii sib taxoo tiijaani alay ridwaanu mubidul jaani lam ca tegaat raddi an nii ne xulafaawu arba ne sama saaba ya la ca tegaat kon ñun lii nu bokk muy diggante tiijaan ak ni xaadir ak murit nga xam ne looloo ne Sénégal sunu sëriñ sëpp benn lan ndax sëriñ Touba wérdu yëpp jaar na ci te nee na benn bu ne ba ma ca jaaree borom a gërëm na ma kon yéen ñii bàyyi koo Tiwaawan ak ñi bàyyi koo amuñu gan yu leen gën a tedd ñun ñii kay ñun la sëñ Tuubaa ni berndeel leen ma sama gan ñi léegi ana ñaan ñooy gan ñi mooy mbokk lislaamam yii juge ci seeni kër ñëw wuy si sant gi ngir eh, jàppale ci sëriñ bi ak gën ko cee fekk si kon nag Seyni Abidin Kunta ngi nii toog di doomi alaaji mam bu Mamadou alaaji mam bu Mamadou ma ko jur cheikh bu Mouhamed jur ko sëriñ na Mouhamed Kunta ngi nii moom nga xam ni moom da cee sëtoo ñaari yoon ne sexal bekaay day maamam alaaji maam bu di maamam kon jërëjëf ne Sidi Lamine ne kaddu gi rafet na soxna saa ngi yónnee nuyoo ci eh, eh, xaritam rakkam soppeem léppam muy soxna Astou Kounta bintu alaaji maam bu Mamadou di ko sant di ko gërëm di nuyu bu baax mboolem ñi fi teew Serigne Cheikh Mbacke Ndiaye mee toog di nit ku baax di borom këru soxna Fatou Mbeng mii soxna déggi mii déggi Diop bërki démb dafa toog fii ànd ñi mu sëkkal wàllu politik waaye ci biiri kàddoom da cee wax loo xam ni kàddu gu fidèle la dani man ku ne xam na ni tiijaan laa ndax man nit la lay fonke ci sa pas-pas lay doon taalibe boo gis nag foo turne seen ko fa ñu naan la yow murit nga wala tiijaan nga wala loo doon da xoolaat sa bopp kër boo ca bokkee da nga koy fësal di ca dox di ko wax fii la toog ci tànki soxna Bali ne ku ne xam ne ni man ab tiijaan laa waaye nag soxna Bali nii laa def muy sama yaay di sama bàjjan na di sama lépp baat yooyu yëpp la ma la ma ca gën a neex rek mooy position bi ndax Sëñ tubaat dafa waxoon ni ñun murid yi ne leen ne ñu ni ngeen di gëmee laa leen di wax sifaatu saadixa muriex de bixtisaar arbaxatu nasam toxoo ni xaw faftiraar ñu ne ñu ñu ne ko lu ci jiitu mu ne asidduqu da ngay dëggal fii maxabbati ci bëgg seexi abat sëpp sëriñ sunante saa li amri yi ni xaysul warat wa tarku lixtiraat mutlaxan wala baatini alay fi maat raaw waaye nag wa maaw salabirtu yàlla ko ni sanni bi laa inkaari mu ne waaye sëñ moom lu mu def rek na la bul xool bul calculer loola nag ñeneen ñekk ñi nga xam ni xamuñu tasawuf mën nañ ko am laa laame waaye ñun ñii ci saal bi ah, ni xamante nan Serigne Sidi Ahmed mii boo la bayloo toolub salaat nga bay ko def ko na mu ko bëggee boo siggee jàkkaarloo moom la la la muy def ci yow ne kan na ci mbedd mi du ko xam waaye yow mi mu ko def ci yow yow yaa koy xam kon nag loolu leneen la ki nga xam ni ni jëlee jëlee na gëlëm njaasaan sàmm ko ba Louga dëpp lañ lañ ko cay fayee moo ko xam weesu lu dul nag mooy ñun ñii. sunu maam yi àndoon ak sëriñ bi doon ko dawal di ko demal kenn amu ci oto ñoom ñëpp saret lan daan yéeg sunu baay yi daan yéeg ci saret yoo xam ni day gën a rafet muy euh, euh, euh, ni kolos ñu agsi nag ba léegi oto yi wàcc ba fi mu ne nii nun na sët yi dañuy xëy muy gën a baax da ngay tëdd di nelaw sax affaire biy dox loola nag dees dees koy sàkku ci kër ba am ko te mooy barke loolu képp a waral ni tasawuf gi gën a taxaw gën a dëgër kon lii ñu nekkee nan nanu gën a booloowaat gën doon benn ni soxna Baali nee na nii rek la ko bëggee nee na moom ne bu sañoon lislaam gi doon benn noo xam ne ñëpp ay mbokk lanu ay soppe lanu te lépp lan ministre Ablaye Ndour ni jërëjëf kaddu gi tonton wax ne soxna Baali ne bi bi mu ko waxee dafa ne man mii seere naa ko te loolu soxna Baali wax na ma ko fu kenn nekkul ne ma sëñ Muntaxa moo ne Ablaye Ndour daal moom ni taalibe la rek te nag sëriñ sëriñ Abdou Khadir waxoon na ni ne yow yow mal xiyaam génnu jëm ab murit dara mënu ko faa jariñ lu dul nu seereel ko ak euh, taalubeem kon nag nduur loolu day na sëkk yal na la yàlla barkeel guddal sa fan wéral la yàq sa njabootu bopp gi nga àndal yëpp ci biir délégation Serigne Sidi Ahmed gis nañ ci Sidi Diop mii toog day sunu xarit na di sunu wóllëre di di nit ku baax waaye nag. bu tarixa tijaan doon am Baye Fall dama naan Baye Fallu sëñ Sidi Ahmed Seen gi ne toog muy Abdou Aziz Samb Abdou Aziz Samb mii ni si Malick ku lay tiitaroo ku lay safoo ku sagoo yenn saa yi nit sax dana ko wax dara moom ci boppam day xam ne lii ko nit kiy wax du dëgg waaye buñ ca tàbbalee sa tur rek dafay daal di valider loolu nag mooy li ma wax léegi muy alxubb fi maxabati seexi abat bëgg gi ngay bëgg sa kilifa jàpp ko te téye moom mooy waral loolu nuyoo bi nga xam ni nag moo bàyyi ko ci tuubaa jóge ci sëñ Muntaxa wàcc soxna Baali bala moo dem Tiwaawan nag day wàccee ci Alaaji Seex Gay mii ndax moom nag mooy dalal gan ñi fii moo leen di yeewi ba noppi njaareem gi fi la jàngee màggandoo ak sunuy sëriñ yaroondoo ak sun sunuy sëriñ da def ko ci alaaxa bu rafet waaye nag muy nit ku am personnalité bëgg Serigne Sidi Ahmed mii waaw bëgg Serigne Sidi Ahmed ne soxna Baali nee na ma way juru Cheikh Serigne Cheikh gay mii ak Serigne Abdou Lahad la woon kon nag yow wàccuwaay yi nga fi am dafa yaatu kon buñ la nuyoo rek mboolem mbokki taalibe yi nga xam ni noo bàyyi ko Tiwaawan ak Serigne Abdou Fall mii ak ñëpp dañuy jël nuyoo bi teg ko sa loxo mu jëm ci mboolem njaboot gi. mbooleem ku Serigne Sidi Ahmed di àndal ni soxna Baali xàmmee na la ni soxna Baali xam na la ndax jotaay yi tàmbaliwul tey te it jotaay yuy tegaloo lay doon bërki démb dañuy ranger photo yi ma ne ko mu ne am na benn foto bu ne sama néeg nan nanu ko yéegal ma ne ko bàjjan nag orne orne bi bu ëppee foto yi dootul rafet mu ne ma kon nga teggi sama bos bee tega teg fi photo photo photo bi yéeg ma daa di yéeg ñu daal di yéegal photo bi bi nu bi nu ko dajjee muy sëñ Sidi Ahmed Sy Dabakh ak sama Muntaxa loolu nag ak cofeel la lim ci jublu mooy ku dugg ci kër gi rek xam ni rek xam ni soxna Bali Serigne Sidi Ahmed mooy xaritam ci Tivaouane waaye moo fay ab cëram caabi bi moo ko yor. te nag si maa ngi seereel la sa mbokk yi nga àndal sa rakk yi ak sa doom yi ñoom ñëpp nañu xam ni seen baay bii ni ku mën a yaatal la. soxna Bali dafa ñëw Tiwaawan di jaale si sëñ Cheikh Ahmed jaan si almaxtuum bi muy jaale si ñëw ci sëñ Sidi Ahmed yëkkati njaal mi jox ko ko si Sidi Ahmed woo ma ci néeg ne ma maamun xam nga nu ñuy def dañuy def nii ak nii ak nii ak nii la waroon dem ca moom mu daal di koy tas ne nii ak nii bi ma ko waxee soxna si soxna si ne ma nee ko loolu moo moo ko moom. léegi moom nala la wax nan la bëgg ñu def ñu def ma ne ko nee na ah nee na naoon dem kër papa nangam nan dem kër papa Maodo nan dem kër papa sëñ Babacar nan dem kër maam Alpha nan dem nan dem nan dem yooyu yëpp ba ba mu mat fukki buntu kër yoo xam ne moom mii ñoo bokk oto oto oto soxna Baali topp ci ñuy dugg biir Tiwaawan gàmmu gi saa bu jotee sox so soxna soxna si saa bu ñëwee ci moom moom sëñ Sidi Ahmed ci ak rafetalam dana déyeeg soxna si ba kenn ku ne ci ñii fi toog donte yow ak soxna si gisante leen waaye teraanga dana bàyyi ko soxna si fekk la ba sa kër te loolu Cheikh Gueye mi mat a ci seere kon moom mii nag cër bi mu fi am tëju ko da koo ubbi yaatal ko ba ñëpp am ci wàll kon nag si Malick jërëjëf noo ngi sant noo ngi gërëm jootaay bi nii mu demee nii rek dafa dafa doy sëkk taw feex ndax sëñ na Cheikh Diop mii mat na sëkk li mu doon gannaaw yéenay sunuy kilifa yi euh, tonton Mbaye gannaaw yaay sunu jëwriñ Serigne Sidi Ahmed mii kër gi di kërëm Cheikh Diop mii soxna Bali gërëm na ko te sant na ko këru Tuubaam bii R plus 3 la waa kokki gépp nga fa waaye saa bu xëyee première safar ba le vingt safar kawasam yi lay xëy sol te moo nag ah DG mat DG la de waaye nag. waaye nag ak mbaaxam ak jàmbaaram ak të pëstéefam ba noppi soxna baali mii sëñ Muntaxa boolewaat kook moom te fekk ak mbokk jiitu na ci kon seex soxna saa ngi sant maam maam ba mii taxaw maam ba mii taxaw mooy magi soxna lii ka mii bi ma ko ne taxawal fii mu taxaw ma jékki-jékki ne ko mbaa taxawaay bi méttiwul mu ne ma dama dama cee sant yàlla ndax sama baay nii la daan taxawee baayam sëriñ Abdou Lahad toog nii kon nag bu lii ka toogee nii ñoom ñaar ñu bokk lépp loolu sant yàlla ni sa doom bopp ji si ni nga fi fekk muy soxna Binta def na lépp defar na lépp matal na lépp xam nga ñett yooyu lépp a ngi ci def na lépp defar na lépp matal na lépp kon dara manqué wut nit ku baax la bëgg soxna baali jàpp ko te téye ko ba ñëpp xam ko ñii nga gis ñu toog ñooy daayira bi bàyyi koo Paris ñoom at bu jot sant sant soxna jaara bi ñuy def di ca di ca teeru soxna Baali di ko ca bernde ñoom ñi ñoo koy def te soxna Galo Jeng jiite ko muy daayira Nuur Daarayni ak waa daayira maam jaara ba yëpp ci njiital la soxna faat Fatiam ñoom ñëpp nii la ñuy def màggal alaaji Moodu sax ngi naan nii xam naa danga dangaa bëgg a dem waaye léegi nag ñoom nii la demee soxna Faatu Géwal buñ ko tuddee ñun ñëpp dañuy daal di dugg ci biir nit ku am kóllëre la nit ku gore te te moom euh, Alaaji Mbay maa ngi lay seereel ni Pastef kese ne ci moom euh, ne soxna soxna Fatou Gueye mii Pastef rekk ne ci moom yam da koy jiital balaa dara xew te lépp loo xam ni lum loo xam ni nit dana fi ñëw ay nit di ko di ko yaakaar ci moom ba dem di ko jëli Fatou Gueye mi du def du def loolu ni Pastef rek ak pas-pas jëfam lay jiital moo tax man maa ni jamono yàllaa ko bindee yee yéen saa yi da xew ba ci yàgg yéen saa yi nga daal di xew yi kenn déggatu la ma ne ko waaye nag yow ñàkkal gi ngay ñàkkal sëriñ bi ak di jox sa addee sim te it ni ku ñeme jaamu yàlla la ma ne ko loolu nag moo tax gaay gaay gaay gaay yi xew bu ndee xew fi lay fekk bu bun dee xeew yi fi leen lay bàyyi loola nag yàlla na la yàlla yokk yàlla sàmm la di di ñoo ngi sant bu baaxit soxna faat ma jóob mii ndax moom lii may def sax xam naa ni moom bëggu ko te it wutu ko waaye nag ab cër la ci kër gi ndax diggam ak soxna si day diggante bu yàgg yàlla boole leen ak mbokk at mu jot muy poroxaan muy fii lu ci jot rek semaine lay def ci kër gi du dem fenn siyaarewul fenn moom dafa tàmbali soxna baali yam ci moom daaw ci waxtu wii daaw daaw géete monsieur le ministre de Moustapha Diop defe naa te Serigne Ndeye Diop ba borom këram daje ngeen fii ci salle bi ak tonton Ablaye Ndour mais te loolu dara mosu cee soppiku kon yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi ni sa borom kër yéene ji président Bassirou Diomaye Faye am ci moom. ba dénk ko lim ko dénk yàlla na ci def lu kawe njortu ne ci barke Seexul Xaddim ñoo ngi nuyu ñëpp noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp ni wasalaamualeykum